Euh, bu ngeen fàttalikoo 2008 2000 2018 2018 nga xamante ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr euh, mu ne ko op donc je pense gars yi live mooy dagg mu ne ko hôpital bu Tivaouane de li fi am donc war ngeen ci taxaw parce que tellement que euh, nit ñi dañuy dox rek mais dee nañ bu yàgg yàgg daal na ko médecin yi problème bi ñu am mooy remplacé aussi tamit bu fi nit jugee kenn du ko remplacé daan na ko nag li am si hôpital bi je pense que Abdoulaye Diouf Sarr war nga si taxaw loolu 2018 la woon 2018 toujours euh, rek xam nga pour ma ñëwaat même suñu même problème bi ñu am mooy euh, suñu njiit yi wala ñi nga xam ne dañ leen di dénk muy santé muy éducation muy feneen ak feneen dañ ko seen parce que bu fekkoon ne bu fekkoon ne dañuy def nekkinu askan bi seen yitte pour man dinañ gën a taxaw si soxla askan bi mais pas comme euh, ni ñu si taxawee nii mais lii lépp day wane rek ne donc manqué manqué volonté dëgg yàlla man bu doon bu fekkoon ne am na lu muy rus wala lu muy jomb donc da ngay démissionné parce que pourquoi ma ne da ngay démissionné parce que lii c' est pas la première fois mu fi am néewuñ na nag yow yaa dem taal ko wala bi muy am da nga koo fekk non non gars yi da ngay wax ñu lay dugal ci débat bu naan la non est ce que bi mu am fekk na ko est ce que moom moo ko taal xam nga non non wax ji du foofu. mais nag bu ñu waxantee dëgg rek xam ne bu fekkoon ne volonté dëgg-dëgg am na si si si yenn fonction yi nga xam ne dañ koy dénk ay ministère taxawee doo ko sa taxawee donc loolu nag pour man euh, leer na quoi ñëpp gis nañ avant sax ñu koy wax parce que xam na ne manul dafa tële. deful santé priorité parce que leneen la def priorité muy politique ak naka la ñuy fexee di campagne te am na yenn fonction yoo xam ne bu ñu ko dénkee pour man dans les boo nekk ci dëkk boo xam ne dëkk bu normal la donc nga nekk nit koo xamante ni nii euh, am nga volonté si li la dénk pour man am na yoo xamante ni bu la ko dénkee rek waroo ko sax boole ak politique wala même bu ko boo ko boolee ak politique sax loolu nga war a jiital def ko priorité avant d'abord ngay def politique mais fii li am Sénégal mooy dañ lay dénk santé nga bàyyi ko fi dem di ko politiquer parce que de mais dañ fay indi ay nit ñoo xam ne sus parce que euh, wala day dem di campagne al ministre donc loolu fii Sénégal fii rek la am te je pense que li am nii bu bu kenn teggi la responsabilité di Abdoulaye Diouf Sarr parce que pour man Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy le premier euh, principal responsable bi nga xam ne mooy li am parce que négligence la xalif général de Tivaouane daf ko wax en 2018 la xalif général taxaw ne ko Abdoulaye Diouf Sarr suñu hôpital bi dimbale leen ñu si sonn nañ ba fi sonn yem nit ñi dañuy dox rek mais dee loolu 2018 la woon bu ko fàtte